الله أكبر الله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 sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها allahu allahu akbar sami allahu liman hamdah sama bopp rek di soññ mbooleem jullit yi rawatina ci nag ñi nga xam ne ci sëriñ bi lañu ajo soññ ji nag weesuwul góorgóorlu bu baax rek eh, gën a fonk suñu diine gën a fonk suñu diine eh, jéem a gën a xam sëriñ bi ba gën a mën a fonk suñu taalibe eh, loolu lépp nag eh, mu ngi ci góorgóorlu rek mu góorgóor bu baax ci gëm ak jéem a xam dafa mel ne lu mu naqari suñu bopp rekk eh, sunu gëm mooy des ak sunu ñàkk xam kon nu góorgóorlu bu baax ci gëna a fuglunte ak sunu bopp ak sunu xol sunu xel lépp jëme ko ci gëm sunu yitte jëpp itam ñu gën koo jëme ci xam loolu rekk eh, sunu wartiif muy jaamu yàlla gi nga xam ne moom rekk moo nu fi indi loolu góorgóorlu ci fug leen teeg sunu bopp ci gën di dolli sunu gëm góor góorlu ci loolu bu baax tey jéem a xamit nag waxtu wu nekk ñaar yooyu nu eh, waru dañ cee war a këpp suñ lépp lu ko mën a boole itam loolu moom moo moom lañ war a jiital ci suñ lépp gëm suñu borom te wéetal ko ci lépp te la ca dolliku mooy sant suñu boroom sax fas yéene sax dàkk ci jaamu ko kon gëm yàlla wéetal ko sant ko sax dàkk ci jaamu ko loolu mooy li nga xam ne mooy moo moo moo gën ci nun ndax loolu moo nuy may muccuk tey moo ñu may mucc ëllëg moo ni taxa mën a defaru defaru tey gu ñu jëme ëllëg ci nu mën a yéegi ak texe itam suñ dundu àdduna suñ dundu àllaaxira gënu jëm kon loolu rek mooy li ci gën a am solo man ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax di gën a sant nag sëriñ bi rek ndax xam nañ ne fàggal nañu lépp lu mat a fàggu lu nuy jëriñ te yëgal nag lépp fàggul nañu ko fan yii nag eh, amoon nañ tawfeex ci soññ suñu bopp ci lu jëm ci eh, ormal dëkk bi ak sellal ko ngir borom dëkk bi waaye alhamdulilahi rabbil alamina daje nañ ceeg tawfiq ndax yëg nañ ne ñi nu ko bokkal nu seq ko yëg nañ ne noo ci bokk yitte mel na ne loolu ñépp gone yeeg mag ñeeg ndaw jigéen ñépp feeñal na loolu loolu nag suñ tawfeex ju gën gën a dolli ko rek suñ tawfeex ci sëriñ bi rek la juñ nuy dolli ndax li weesu liñ ci war a wax lépp waxees na ko taxawaay biñ ci war a def yépp kilifa yi def nañ ko waaw dafa fekk na nag waxtu wu ne nit dafa war a eh, soññ boppam ci li ko war kon dara ëppul ëpp suñ ci suñ suñu wartiif dara ëpp ca ormaalal sëriñ bi dëkkam bii te lépp lu lu ñu ci man lu kem kàttan ba dëkk bi gën a mën a sell nu góor góorgóorlu ci bu baax a baax ndax euh, ku ne xam ne dëkk bi ni mu demee ci sëriñ bi kon gannaaw jaamu yàlla ak liggéeyal ko ci suñ lépp ci lépp lu baax war noonu bàyyi xel nag dëkk bi ndax yitteel na ko lool ñor na ko lool te fàgguna fi lépp lépp luy lu baax ñaan na ko fi boroomam te defal na ko fi lépp lu safaan mus na ko ñaan na ko boroom mu daqal ko ko fi kon li mu li mu bëgg moom boroomam defal na ko fi te day gën a feeñ dëgg la àdduna moom ak baaxam àdduna moom ak nu muy doxee loolu moom wàllu boppam la du moom du jag te kenn mënu koo jagal waaye li sëñ bi bëgg moom dana am ci dëkk bi li ci dalal suñu xel nag mooy tawfeex ju ñu am ba soññ suñu bopp soññ ñeen ko séqal ñu ko bokkal ci ormal dëkk bi ak sellal ko ñépp yëgandoo ko muy gone yi muy mag ñi muy góor ñi muy jigéen ñi ñépp yëgandoo loolu loolu lu lu lu waroon na lu doon dox bay am lu ci war a feeñ ci jamono jii ne dara ci li ñu weesu dara manqué wut liñ ci war a wax lépp wax nañ ko liñ ci war a taxawaay taxawaay bi ñu war a taxaw yëpp taxawaay nañ waaye sëriñ bi la laay li pàggute fu sëriñ bi nag ginnaaw ci biir adduna la lay dox faw nag dañ day lépp daan ko gis xëy na bu buñ ko gisanduwul benn yoon itam lépp li mu fa fàggu lépp te bëgg ko ci dëkk bi daan ci teg suñu bët wala ku mu fi fekk da ci teg si bët waaw waaw doxin bi demee noonu nag adduna moo doxee moo moo moo demee noonu kon eh, ci jamono yii war na sant ñun ñëpp ndax tawféex la rek tawféex sëriñ bi rek ñun ñu gàttandoo la kon ñun ñépp muy muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ci yëg-yëg bi nga xam ne. am nañ ko ci fan yii jëmee ko ci warmaal dëkk bi ngir sëriñ bi warmaalal ko dëkk bi lal ko dëkk bi loolu te loolu tawfeex yooyu ñun ñëpp ko bokk kon nan sant bu baax a baax a baax a a baax te nag nu nu nu nu def ci suñu yëpp suñu lépp suñu xel nan koy bàyyi xel def ko ci suñu mu ci suñu def ko ci suñu yitte suñu kem kàttan loolu xaas la joo xam ne sëñ bee ko suñu borom moo ko defal sëriñ bi kon war na noo xam xaasam xaasam te def ci suñu kem kàttan lépp sax di gëm a boromam la lépp lépp lépp lépp noppi la mënuñu ci dolli dara waaye nag suñu wartif ci moom nu gën góorlu ci bu baax góorgóorlu ci bu baax sax ci jaamu yàlla suñu kem kàttan sax ci liggéeyal ko ci suñu lépp ak lépp lu baax te fonkal ko nag dëkkam bii war maa lal ko ko sellalal ko ko loolu tawféex ji nu am ci jëm fan yi ñu dolli ko ci fan yi bu nu góorgóorloo ba mu ba mu wéy su lépp ci defaroo bii rek bi ti tey kon noonu rek la demee eh, nanu góorgóorlu nag ci li nga xam ne moo nu fi andi mu jàmm yàlla sëriñ bi da cee def diggam ak boroomam diggam ak yonent ci da cee def loo xam ne jenn menn mbindeef mënu ko weesu menn mbindeef mënu ko weesu kon te du woon dara lu jaamu boroomam ci léppam liggéeyal yoon liggéeyal yonent bi ci léppam sax ca dàkk biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci loolu rek la nekk waaye nag alhamdulilahi rabbil noo am tawféex nu yàlla boole nag moom mu bàyyi nu fi nu nekkal ko fi kon lim nekkoon amul lu am lu ñuy jàng lim nekkoon nañ ko ci nekkal suñ kem kàttan suñ kem kàttan moo xam ñi jëm ci sariya la moo xam ñi jëm ci xaq la kon loolu lépp tënk bi moo di taalibe taalibe mooy yoon wi gën a gaaw ci suñu digganteek suñu borom moo tax ñi mag ñi jëkk topp sëriñ bi te yàlla rekk tax leen a jóg ñu fekk ci lañ bëgg lépp ak ak ak ak lu kawe seen jot ak lañ lañ ci xamul ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo tudde eh, yitte jooju ak taxawaay boobu ak jëf jooju mag ñi ñoo ko tudde ak taalube mag ñi ñoo ko tudde ak taalube kon taalube lépp ngi ci biir waaye nan góorgóorlu ba ma nekk ay taalube dañuy góorgóorlu ba nekk ay dëgg ay julli dëgg dëgg góorgóorlu ba nekk ay taalube dëgg ay taalube dëgg dëgg la ñu doy di lañ doom am nan doy di doomu aadama yàlla suñu coo coobare coobare suñu boobama ci ci xarañam moo xam ne mu ko defee waaye nag du tee nanu góorgóorlu nanu góorlu ci li si leen fi sëriñ bi bàyyil jaamu yàlla rekk la fi bàyyil ak liggéeyal ko ni mu doon liggéeyal yonent bi loolu nan ci góorlu bu baax moo nuy dimbali liggéey boobu nu koy liggéeyal loolu moo nu ci moo nu moo nu ci dimbali ci ci an anam dañuy dañuy góor góorlu ci defaral ko sunu bopp lu mu ci mën suñu kem ndax bala ngaa mën a defar danga war a defaru ba noppi boo dee joxe itam te ñun dañu baaxoo dañu joxe suñu joxe suñu suñu lépp dañuy góorgóorlu ci suñu bopp jéem di defar sunu bopp dañ koy jéem buñ ko yéenee eh, muy suñ pësteef muy suñ yitte lu mu lu mu jafe-jafe dana yomb waaw nan jéem dooni jullit dooni taalibe ci lii ci lii nu fi sëriñ bi bàyyil bàyyil nañu fi lépp kon nanu góorgóorlu bu baax ci suñ bopp ba ba ba defar suñ jéem a defar suñ bopp ba gën koo mën a liggéeyal liggéeyal ba gën a sell loolu rekk la loolu rekk la lu nu naq gannaaw ba lu nu naqari suñu bopp danoo danoo sàggan ju wàll rek lu nu ci naqari suñu bopp rek muy ci biir mu ci bitt danoo sàggane kooku wàll rek waaye buñ ko sàgganewut taxe dugg na adduna fitnay kese la fitnay kese la ku ci ko xam ne adduna rek la moo ci nga nekk moo la tax a jóg doo am jàmm mukk te ñàkk jàmm gi fii mooy moo moo moo moo moo mooy jàmmi ëllëg mooy jàmm mooy ñàkk jàmm gi ëllëg lu nu gën a góorgóorlu ci loolu gën a am jàmm gën a moom suñu bopp ba mën a jox lu joxe suñu lépp noonu rek la demee lu nu naqari suñu bopp buñ ko jooytoo kenn nan yedd suñu bopp te soññ suñu bopp te gën a góorgóorlu ci li nga xam ne moo nu jig leneen jigunu nekk ci li lu fi sëriñ bàyyi rek dara jigunu dara jigunu ci biir dara jigunu ci bitti dara jigunu loolu loolu waaye buñ ca góorgóorloo lépp ki nga xam ne mooy def di dindi moo ni nekkal mooy nekk sëriñ bi ci noonu mooy nekk sëriñ bi ci noonu ndax moom moo nekk sëriñ bi kon buñ ci góorgóorloo mooy nekk sëriñ bi ci noonu waaye nag il faut que nu def suñu kat kàttan bu ñu defee suñu gëm gàttal rek ñu wallu nu wo- wombat nu noonu rek la deme sëriñ bi ah, diggam ak borom diggam ak yonent bi kenn mënu ko ci jiitu da ngeen fay daje rek kenn mënu ko ci jiitu loolu ku xam sëriñ bi ku am tawfeex xam sëriñ bi da nga xam loolu kon war na noo wuuf suñu bokki jullit yépp war na noo wuuf suñu bokki jullit yépp won leen sëriñ bi sëriñ bi ku ko xam rek ku ko xam rek jëriñu ci noonu noonu rek la demee nag jafe-jafe yi yépp daara suñu càggante rekk la ak ñàkk nekk ci suñu war suñu wartiif képp xam ne sàggan nag nekkul ci sa warti loolu ko jaay bu ko jàmbat kenn na nga koy muñ rek te bu la ñaan yàlla ñaan yàlla kenn ku ne sa diggante sa borom bi daal dox bi nga mu wallu la teg la ci yoon wa waaye ni adduna demee moom la baaxoon sax naka jekk jaam ñi adduna àdduna jiital na leen jekku na leen ndax taluñu yàlla taluñu alaxira nun taluñu talatuñu talatuñu yàlla talatuñu alaxira ndax jiital gu nu ji àdduna jiital te jekkunu loolu rek la demee waaye lu nu gën lu nu gëna a lu nu gën a lu nu gën teg fee àdduna teg fee du demewut noonu teg fee àdduna mooy sa yitt sa sa sa yitt yëpp nga jëma ko ci sa borom nekk ci lam la diggal sa kem kàttan daw lam la tere sa kem kàttan nekk ci lam bëgg sa kem kàttan nekk daw la la mu bañ sa kem kattan nga sax nekk ci sax sa dakk du tee fa tabaarakallaahu wërsëg yàllaa ko jaam yàllaa ko moom te du jeexal moo koy jaam bu ne am na wërsëgam kenn mu a dox si diggante ba fu toogoon projet loo xam ne wërsëgam dana koo fekk bu dee dara jot dana ko dana ko jot ak lu mu mën a doon lu mu mën a doon ci xéewal lu mu mën a doon xew ci ko kooku ñun yoon nekku ci yàlla nu ko moo ko moom nu ko amee te tëliwul dara te jeexliwul dara bu bu nekkee ci lii nu war a nekk moo nu nekkal ci suñ lépp lan waa àdduna ji wut seen àdduna ko nekkalee dañuy am da da da da man man man mën na dem bëgg ba ëpp leen ko te ñoom duñ ko jariñoo te noonu dañu koy jariñoo te duñu yàqal dara ëllëg waaw lu leer la. lu leer la lu lu jafe wuti ja xam ñaa ñàkk xam rek ñàkk xam ñàkk gëm ak ñàkk xam waaw yàlla na ci yàlla musal lu nu dal rek ñàkk gëm ak ñàkk xam lu nu dal rek ñàkk gëm ak ñàkk xam nanu góor-góorlu ci lu nuy taxal lu nuy may ngëm luy wéral suñu ngëm nam ca góor-góorlu lu nuy tax xam nam ca góor-góorlu noonu rek la demee du dara du leneen maa ngi jéggu bi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf maa ngi sant eh, sant gi ma doon gi ma ñëwoon nag ci li weesu ci gannaaw li nga xam ne mooy tawfeex leen tawfeex ji nu am ngeen dégloo soññi bi ma doon soññe tawfeex ji ma am ba ba ba ba ba yëg sama kàddu di ko soññe ci dama dama dama ko ñi ñi taxoon ñi ñuy tax ma di ko soññe ñëpp rawatina ci ñi ñi ci biir biir dëkk bi dama ko fekk ci ñoom loolu nag nañu xam ne maa ngi leen di sant sunu borom waxuma la ma di leen sant ci taxawaay bii jamono jii fii nu nekk fii nu toll cant bu réer réer laa leen amel waaw dama leen di gën jëkk sant suñu borom jëkk leen sant Serigne Touba mii mu xam ne mooy suñu lépp te tawfeex jooju moom lépp moom def nu ci dara kon nan sant yàlla ci tawfeex jooju nan sant yàlla ci tawfeex jooju jóg jóg jógul jóg fas yéene liggéeyal Serigne Touba waaw nan jóg fas yéene liggéeyal Serigne Touba namu ko mën na yem fam na yem loo ndax moo ne abdul abdulillahi wa xadimu rasuli di jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi nu nit sañ nanu nag di jaamu yàlla ndax doonu suñu bopp dara waaye di ko liggéeyal li mu doon liggéeyal yonent bi suñu kem kattan waaw jërë ngeen jëf salaatun wa taslimun min allahi بالرسم نبي